man pap Oumar sar la tudd euh, maa ngi dëkk Nantes France waaye maa ngi dëkk Pikine euh, maa ngi bokk tamit ci Pikine Jëg-Jëf ba pare nekk secrétaire général fédération internationale des Sénégalais de la diaspora fii ñu toll am na ay pàcc ci 71 pays ñu leen di tuddee ay comités régionaux euh, ñu ñëwoon nak bokk si ci Pikine en fête bi ànd ak waa Pikine Jëg-Jëf bi yoon yàlla dimbale nañu sax bañ lëkkalee ñaari organisation yooyu ma bokk bañ àndandoo def benn don de sang boo xam ni def nañ ko démb ci ginnaaw raay centre APEX euh, yàlla dimbali ñu ci tamit waa Pikine wuy suñu mu nekk don de bu mucc ayib euh, tey ñu ñëw teewee si première journée wala ouverture Pikine en fête bi nga xam ni on le on le déroule sur 72 heures te tey nekkoon euh, après midi sargal ñu ñëwoon teewe ko bokk ci événement bi nga xam ni day fàttaliku. doomu Pikine yi nga xam ne si seen taxawaay rafet na ci Pikine te yàlla moom leen euh, kuy jëf tey pour Pikine war ngaa fàttaliku ni am na ñu doon jëf démb ñu ñëwoon kon fàttaliku ñi ñi doon def démb te xam ne si seen tànk rek lañ topp euh, di ñaan yàlla lu mel nii ñu koy faral di def ndax pikin daa war di fàttaliku démb ndax boo fàttalikoo sa démb ci ci ngay xam sa ëllëg ci ngay xam ki nga doon xam fan la mag ñi démb ak ñii la jiite woon tegoon seen tànk nga fexe ba loolu nga bañ cee yàq dara te jëm koo fuul mu jëm kanam nañ mhm. eh, ni yaa ngi représenté bu presque sénégalais yi nekk si diaspora yi. Pikine itam bëri na ay ndaw yoo xamante ñu ngi rêvé génn bi dem ci bitim réew. Mhm. ñu bëri di ko jaaree si yoon yi nga xam ne yoon. Mhm. soit yoonu suuf wala yoonu ndox mi. donc yéen eh, ñi nga xam ne dimbali na leen am ngeen ay opportunité pour a taxaw xeex loolu noonu lan ngeen ci waaw euh, ci FSD bokk na ci waxtaan ak ndaw réew mi ndax réew ay ndaw ñoo koy yor bu ndaw mi réew mi yëpp bëggee génn réew mi jaar des fois ci yoon yoo xam ne si seen bakkan day des ci yoon wi moo xam ci géej gi la moo xam ci jéer ji la ndax am na ñuy jaar ci désert bi tamit di ñu ciy dee lu bëree bëree bëri euh, war nañu def liggéeyu éducation mooy li ma wax démb ci doon du sang bi rek éducation au don dafa bokk ci éducation à la citoyenneté waaye éducation à la citoyenneté mooy tax ndaw yi xam ñoom ki ñu doon waaye xam tamit dëgg-dëgg li ñu yaakaar ni mooy Eldorado ba tax mu jaral leen ñu ñu mën a foog seen bakkan wala ñu risquer seen bakkan euh, pour mën a dem ci réew yoo xam ne si tey dara amu fa. Euh, xam nga nag nekk bitim réew ñëwoo ba pare nit ñi fi nekk bu ñu dem day xaw a nuru siis wala wala. waa c'est c'est un peu compliqué à expliquer waaye yàlla xam na ne ñu bëri ñuy dem seen liñ mën a def fii moo gën a yomb gën a yemb euh, li ñuy daj pour dem bitim réew. jarul vraiment euh, risque seen bakkan waaye loolu éducation la rek euh, éducation boo xam ne si xëy na sax war nañoo éduquer waale njëkk ñi nga xam ne ñi ngi bitim réew di xoslu di dund lu metti di dajale te bu ñu ñëwee au lieu ñuy wax dëgg ñu bëgg a dëkk ci yore oto bu rëy euh, yore mbubb yu rafet. di dox di passer passeré xaalis melne ne fañ jóge dañ ko fay for té yalla xam ni buñuy dund fofu liñ fay dund yenn saa dund gu ñéku dé la sax euh voilà donc c'est très paradoxal il va falloir que nit ñi trouver ay ay ay moyens waxtané ko ndax penc mi ñun ñoko bok euh man nak pencu Pikine lay waxé te yaakaar naa ni pikin waay yi nekk bitim réew ñoom ñoo am tey responsabilité waxtaan ak ndawu Pikine yi fexe ba ndawu Pikine yi xoolaat pikin xool nu ñuy tedd ci biir pikin bu ñu defaree pikin fexe ba ñi mën tuuti jàppale ñi mënul. ñi am tuuti jàppale ñi amul ñi xam tuuti indi ay initiative ak ay prospective yu mën a tax ba xale yi am fu ñu jafandu xëy na xar kanamu Pikine dana changé ba nit ñi mën a toog Pikine. bu loolu weesoo yi nekk ci yi euh, yu ci am ngeen loo xamante mbëbët ngeen ko pour au moins taxawu communauté sénégalaise yi nekk à waaw booloo booloo moo moo li sol mooy solo bu njëkk ci li ñuy jéem a def ndax dañoo dajale. ay sénégalais yu nek ci 71 pays waxna la légui def ben slogan bu boo xam day wax né une diaspora unie et engagée pour le développement du Sénégal donc nañ nañ dajale ñep ñep and ndax bu ñep andé xëy lañuy gëna fort ci lañuy gëna mëna samanté ci lañuy gëna mëna protéger wu ci lañuy gëna mëna a mën euh, di dóorandoo voilà euh, phénomène bi ñuy gis tay nak mu melni phénomène bu bees ay sénégalais yu bari ñu leen dara ci bitim rew euh, en fait phénomène médiatique moo mu mel ni dafa gën bari en réalité aucune étude ne peut montrer que sénégalais yi tey lañ leen a gën a rey euh, xam nga kuy tukki moom tukki euh, dee dafa nekk ci yoon yépp ah sax wax na ko mi ngi ci kanam mi ngi ci ginnaaw foo munti nek dee mu ngi fa donc dee ci yoonu immigration la bokk yoonu aventure dafa tolok tay nak media yi dañoo bëree bëri ba nga xam euh da ngay yaakaar ni dee gi dafa gëna bari mais dee bi ñun ñun ñu daan dee rek la ñuy dee ba léegi vraiment je n'ai pas d'étude bu tax buy wane ni dee bi dafa gën a bari waaye nag suñ sañoon benn sénégalais du dee ci àll bi. suñ sañoon sénégalais yi di lëkkaloo ndax am na dee yoo xam ne si des fois isolement bu bëri la am na dee yoo xam ne si xëy na ñun ñoo pro ñoo ñoo manqué wul ba mun di ku rey sénégalais nit ñi taxawu la.